nga bëgg ñooñu daan leen ba noppi génn def sorti wax ñu tontu bi ñu tontoo yow noo gisee noo gisee ñoom lu ñu waxee. moo la benn affaire ci àdduna mosuma def interview. Mhm. di xool tontu nit ñi. sama bu góor ñoo bokkoon dara bàyyi xam nga lu ma wax keroog dafa ko sa une semaine. Mhm. day xool tontu nit ñi pour nga xool luñ lay waxal nga xam fooy jaar ak foo warul jaar. waaye moytul yéene waaye sama mag bu góor moo loolu nangu naa ko bu baax a baax waaye mosuma di xool interview mosuma di def interview di xool tontu yi. non waxuma tontu ñii commentaire maanaam mbër yi nga xamante ni wax nga ci ñoom muy muy muy ki nga xamante ni muy doomu doomu Jalaaw ak ki nga xamante ni mooy euh, Sakho Dior. bi nga bi Sakho Dior waxuma ci moom. am ko laa waxal. amu mhm. seen ak doomu Jalaaw. waxuma ci Saaka seen junior li nga wax Saaka moo ko métti moo tax moom mu génn tontu la. dafa comprendre luy làmb. àdduna neexul. Mm-hmm. boo nekkee ci gox. boo nekkee ci gox. am fa ay mbër yu bari amul mbër. foog nga sa saxul rafet tolop. meloon naa noon de man. dama doon génne samay gàllaaj di ko di ko abal mbër man ba bis garage bi nga takk nga jël ko ma suul suma ak sëñ Modou Croix bi ma yaakaar. su ma déwee yàlla may lakk. def naa ko. léegi ci jublu ñu am ndam. ndax samay nit lañu samay rakk lañu samay mag lañu. est-ce que bu ñu paree dinañ la delloowaat gàllankoor. waaw dañ ma ko ko may jàmm ak salaam. waaye xam nga sénégalais benn nopp lay déggee. te am ñaari nopp. Mm-hmm. yow yow feebar. fii am na fee am na ñu yóbbu la hôpital ñu xam ne fii feebar hôpital la après ñu bëggoon ne Papis Général nangam nangam kooku yàlla dina ko may jaam ak salaam bu ko yàlla bëggee def yéen yi nag yàlla la. pourtant nag yàlla mun na ma njëkk a jël ko moom yàlla mun naa njëkk a jël keneen ko moom nañ bàyyi day jël wax di ko seeral. Eumeu Sène junior du ma mom Eumeu Sène junior mun naa booy nuyu ko waat ko. amagul neuf cent mille ci làmb oh, oh. ñu ñu ñu may ay million may laa la a may du caché de may moo amagul neuf cent ci làmb lu muy wax làmb a demee noonu. mais est nekkul li nga wax magam moo ko metti lu ko war a metti lan ma ko war a metti nga daan magam. magam feebar nekk ci ay tolof tolof ñëpp jël ne papi papi général moo liggéey saa Kajoor mu dégg wax jooju est-ce loolu moo ko metti bu doon musiba bu rëy la. billaay wala teraay mën naa ko def sama kër quatre wula semaine mu toog sama biir mu si ñu biir kër. sama kër famille du sama kër sama kër famille waaye ci laa bokk rek. ñu def fa semaine waa sama waa dëkk faj ko te bu doon loola day war force nañ bàyyi di yokk situation yi léegi situation bu mu yokku noonu. dina ko yokk moom. dina moom am na mu yokk. moom yokk moom. waaw léegi Eumeu Sène junior Eumeu Sène junior dégg naa la bu baax de Eumeu Sène junior génn wax Eumeu Sène junior am komba mhm. nga toog ne na waaj. lu tax nga lu tax nga koy tëkku. ndax wax ji mu wax. xam nga lan la. Hmm? moom buñ ko interrogé. na wax ci waxam. moom waxuma ci moom suma ma mhm. booy dox tànk kan ngay doxee. say tànk. Mhm. na doxe ay tànk mbay tànk jàmbur bu bëggee dara. te doomu aadama la nañ bàyyi di nëbbatu ci réseaux sociaux yi. am mu waroon def am na avance combat na génn mën a som jox ko diw bu dee yow da bugg a dimbali nit. jox sa am nga ko génn benn som nga jox ko diw mu dem ci hôpital faju ji yow nga tubadoo sa combat waaye du man. man ak moom amuñu affaire man xaw su ma romboon sax du ma ko xame ndax ay mbir yu ndaw la ma kanam dañoo tuuti sama kanam yu ndaw a ndaw la neuf cent mille xawma ko waaye nag ah acca nañ dem. léegi lan moo tax lan moo tax nga koy nga koy dëkku. kan lay bëre du ngel joon lay bëre. non non non kan lay bëre. Kalmundoor. Kalmundoor léegi lan moo tax nga ne Kalmundoor sax kala Kalmundoor di nga ko jàppale Kalmundoor bu toogee bu tëddee na nelaw. est-ce que nga ne mënu mënu maa def deux trois jours gisuma Kalmundoor. Cameroun fu mu dëkk di dëkk mar mar yii la rek mar. Hmm? suñu mbokk la. mar looj mosuma faa daanu. jën naa fa daw gaadu poids deux fois poids lourd mosuma faa daanu man. bëre dóor bu ma ñëw Ndakaaru bëre dóor damaa sonn ci bëre simple. dix-huit ans maa ngi jël ay lamb bëre simple ba tey. ana ban mbir nga gis mooy jóge dëkk ak dëkk. indi 5000 francs ci oto war koo fay 35000 daf si làmbu boo daanoo premier tour ñàkk nga dem final sa boo daanoo ñàkk nga ma ne gars yi lañ dem ma ne may lekk force. luñ la doon déey la wala sa ngëm-ngëmu bopp la. non man mun na Sénégal xam nañ moom amul Sénégal ku ma dàgg bëre mun nga ma abu chance ne yàlla ay maye daa am ci laamu ji de am na mbir yu nekk Ndakaaru fii mënuñu tus te ñoo ngi lekk ay millions yu millions. te ñoom lu ñu lekk sax man lekkuma ko te maa leen dàkk bëre téeméeri junni yoon du fit du gaa laaj du dara maa leen dàkk bëre foofu te pourtant ñoo ngi nekk ay million seen wërsëgu yàlla lax nañ ko jël yàlla mu des si ñoom waaye nag damaa xamoon lan laa doon bëre simple lan laa mun ak ñi may xaar su ma taaloon sama oto ñaari oto di dem si ay làmb oto yi ñuy def fi ñoo amul fi ñoo boo jógee suñu dëkk wàcc pont bi. fa la oto yi di gaare kalandoo yi ñëpp ay jël cette place kalandoo fu muy sitaan ñu naan nangam ñëpp jógu nañ ndax pour sitaan lu neex ak fecc gu neex. xale bu ndaw fecc bi moom mënatuloo ko xale bu ndaw mhm. doo ma yab.